mathématique est-ce que mathématique mën nañ ko génnee suñu dund. ah science moom. Euh, xam nga mathématique c'est la base de la science. oui waaw ah, mu ngoog te science moom moo yor àdduna bi. te loo wax mu ngi ci biir loo wax mu ci biir mathématique waxuma la dara waaye au de la de la résolution modélisation yi ngay def euh, ni muy ni muy forme personnalité parce que dafay indi li ñuy wax compétence transversale. Mm-hmm. xam nga booy jéem a nekk fii di résoudre exercice di résoudre problème. dina développer ci yow sens de la rigueur. dëgg ñëpp xam nañ ne rigueur lu am solo la ci àdduna. dëgg la loolu da jëriñ fu nekk. Mhm. soo waree ñëw waxtu ñëw waxtu. Mhm. li nga war a wax nga wax ko yem ci. Mhm. loolu yëpp c'est le sens de la rigueur. raisonnement. logique. da lay jàngal yow nooy amee logique. parce que logique nag c'est le propre des humains. bien nga nga nga nga mun a raisonner. donc compétence transversale yooyu yëpp booy jàng mathématique. au-delà de résolution yi ngay def ak yi ngay calculer dana développer ses capacités en toi et ça c'est transférable partout dans la vie mm. partout moo tax ma ne tous les jours que Dieu fait on fait de mathématiques parce que le mathématicien dafay am ses compétences transversales qu'il transporte partout mm. dans sa façon de faire dans sa façon de parler dans sa tête mooy la logique mooy de mooy raisonnement mooy sens de la rigueur et cetera et cetera mm. ça c'est très important que ñu développer l'enseignement des sciences et des mathématiques malheureusement lu ñu seetlu man de bi nga bi may def bag dama ne woon deux su ko amee en ah mat damay jàll ah la ma mat kat dama ci mos a xam daal te looloo taxoon ma doon wax fii moo jour ma doon wax doyen nga ni yaa ngi door comprendre lu tax loolu maa ngi door xam nga doon naa wax fii doyen naan ko professeur yi ah wala instituteurs yi comme primaire ni ngay suivre benn élève danga war di ko topp CI CP parce que am nga capacité bi parce que dina tax nga mën a réparer ay lacune am mais imaginer nga ñëw par exemple jóge ci benn école dem ci benn école mm-hmm. fekk fa benn professeur de maths wala cours yi commence une semaine ngay door a dabe fekk fa professeur de maths mu mel ni fusée ratatatata yow da ngay ñëw doo xam dara ci liñ lay wax say parent bu ñu mënul am benn répétiteur bu lay jàngal ca kër ga te la mu lay la nga ko nar a fay loolu rek xam nga ni jamono toll na foo xam te ni la nga koy fay moom mat na dund dund kër gi hmm? boo ko amul chance boobu boo deful lakk lacune bi c'est fini parce que bu la rëccee rek rëcc na la absolument bu la rëccee na la ñun nan lañ doon def da ngay gis sa benn xarit mm. bu góor wala bu jigéen bu dee moom mooy am meilleure not en mathématique mm-hmm. yow da fexe boo leen di réviser moom mu mhm. lay expliquer mhm. yow comme da ay anglais ak philosophie mhm. yow nga koy expliquer fi mu am lacune noon ngeen doon échangeante hmm? léegi yow au lieu nga ji ma performant da ngay ji ma fexe ni fii naa fi xaw a tane tuuti rek pour mën a jàll te alors que da nga fa waroon a mën a performer waaw c'est vrai c'est vrai naa ne discipline boo xam ne yombul la waaye discipline bu accessible la tamit waaw mais facteurs yi nga xam ne nag dafay expliquer le fait que xale yi di ko gën a daw effectif yi di gën a wàññeeku parce que léegi lycée boo dem presque Sénégal mënoo fa trouver lu ëpp benn terminal S1 c'est pas possible benn nga fay fekk te soo moytuwul ay dix élèves lay nekk moins de dix donc recule bi de cette discipline scientifique bi mais c'est alarmant et c'est au niveau national mhm. national kooku c'est un gros problème mhm. fi mu nekk nii ça fait partie des défis du système éducatif parce que d'ici quelques années on n'aura plus de scientifiques pour renverser tendance bi pour renverser tendance bi tu prends presque tous les lycées en lycée qui fait des milliers d'élèves terminal s en on va te dire moins de benn terminal S1 de dix élèves mais pourquoi le problème. oui mais pourquoi tamit parce que oui. mathématique waruñu bàyyi ba nit ñi dem cycle secondaire nga leen koy jàngal moo tax mais yéen de pays développé seen xale yu ndaw bala nga préscolaire dañu lay jàngal mathématique ba ngay commencé ni nga doon waxee sànq da ngay commencé mën a di raisonner di développer waaw say faculté la ñuy commencé mm. ci ay astuces ba nga commencé am euh, kii bi waaw yooyu yëpp ay raisonnement bi facteur la facteur yi moom bu ñu interroger lan moo tax euh, désaffection bi vers les filières scientifiques en gros bac bi passé on a peut-être dans dix-huit à peu près dix-huit pour cent effectifs yi rek mooy scientifique entre dix li si des yëpp c'est des séries littéraires année yi passée aussi même chose chaque année c'est des c'est des c'est des taux autour de dix-huit à vingt pour cent mooy am bac S1 S2 filière scientifique tout confondu bon am c'est un problème mais moo mais facteurs yi nag dafa bari mun nañ ko jàngat euh, institutions yi ñu ngi ciy liggéey structures yi ñu ngi ciy liggéey man académie bi ma nekk par exemple des sciences et techniques ngi ciy liggéey mais je sais que c'est un problème te c'est un problème qu'il faut prendre à bras le parce que nag sans vraiment des scientifiques on ne peut pas construire le pays